jërgën jëf mbokk yi ñuy faral di ñu seetaan ci leeral TV leeral point net ak di ñu déglu ci leexal FM ñu ngi leen di gërëm di leen sant di yen ci yéen ci entretien exclusif cette fois si war a sekk waxtaan ak kenn ki nga xamante ni euh, tey doono na fi journaliste au niveau de la RTS tey mu doon coordonnateur de la plateforme Sénégal à la croisée des chemins muy Abdoulaye Fofana euh, ñu war a sekk moom waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy situation politique réew mi. waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy dans la sous-région la crise sécuritaire mais aussi euh, ci li nga xamante ni mooy kan bi ñu dëgmal mu war a démarrer fan yi incha allah foofa euh, Fofana ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay kontaan lool ci dikk bi ngeen ñëw pour ñu seq waxtaan waxtaan boo xam ne dañu ñaan rek ñu tàmbali ko ci bisimilah rahmaani rahim eh, tëj ko ci alhamdulilah rabbil alamin mu nekk njëriñ ci ñi koy seetaan. Abdoulaye euh, euh, ci li nga xamante ne moom mooy Afrique nemmeeku nañu ci at yi weesu ay coup d'état muy réew yi lu wër ci mel ni Mali Burkina Guinée Gabon Niger situation boo xamante ni ñu bëri dañu jàpp ni mbetteel la ndax ay jamono yu weesu wala ay jamono ci ginnaaw lañ doon wax ay coup d'état ñu def ba toll fii ñu yaakaar ni yi ni mel weesu nañ ko mu dikkaat ci euh, li nga xamante ne mooy jamono ji d'abord ban jàngat nga def ci situation boo xamante ni moom la Afrique bi dund. waaw xam nga Afrique maanaam euh, dafa soppeeku euh, liñ naan paradigme yi fondamentaux yi euh, yooyu yëpp dafa changé maanaam. Afrique bi nekkoon jamono yi bi ñu dem indépendance depuis yu bëri ay 1960 ba dans les années 70 euh, vingt dafa soppeeku booy xool euh, bi François Mitterrand wootee jëmmi jamono ne dafa bëgg Afrique démocratie. nag am fa léegi mooy démocratisation du continent euh, africain loolu euh, tugal la xewe woon chef d'état Afrique yu bari euh, fekke woon ko xëy na tey ña ko fekke woon tey booy wax benn ñaar xëy na ñi ci des ñépp dem nañu waaye xam nga jamono buy dox da soppeeku walla dootoo bokk ci rythme mutation boobu booy xool sax waxuma Afrique waaye booy xool ñun rek ci biir euh, Sénégal euh, tey société sénégalaise bi dafa am benn mutation maanaam gis nga léegi xale yi langage bi comportement bi gis-gis yi euh, yëpp dafa soppeeku ndax loolu li ko gën a amplifier gën ko dëgëral mooy irruption réseaux sociaux yi ndax xam nga ab diir ci ginnaaw réseaux sociaux amul woon ñun bi ñuy liggéey euh, nekk télévision nationale ak ñi nga xam ne magoon nañu bi ñuy démarrer affaire yi di ciy def lu ñu mën réseaux sociaux boobu amul léegi nag réseau sociaux boo amee dafay rey les médias classiques donc loolu aussi tey day amplifier li xew tey ci àdduna bi ci Afrique booy xool tey euh, Mali wax nga ko sànq Bénin mën naa ko ci bool yi Guinée Burkina dëkk yooyu nga tudd rek ñeent yooyu rek du ma sax tudd yeneen fu ci am na fa mais booy xool dëkk yooyu ku ci nekk daanaka bi coup d'état di am ci ki ko jiite armée bi di jël pouvoir bi amoon nga baneen mandat boo xam ne yow terminé wuloo ko booy xool bi ñu gën a jege fii ci Mali IBK dafa faluwaat mais gis na bi mu faluwaatee jëriñoowu ko xëy population malienne bi gën contestation bari armée bi jël pouvoir bi Assimi Goïta nekk chef d'état bi ci mujj mooy Niger coow li bari na Bazoum faluwaatoon na mais gis nga après soldats yi jël réew am na ci Guinée am na ci Burkina c'est dans l'air du temps ba tax na tey gis nga peuple yi dañu exigeant moo tax leader bu ci jiitee réew te sa xel doo ko bàyyi ci peuple bi jafe na tey pour mandat bi ñu lay fal nga dem ba mu jeex ndax bu contestation amee rek ñi nga xam ne tey ñoo war a àtte bu ñuy àtte rek dañuy jël mbir yi donc li ñuy wax naan Sénégal tey benn ceinture de feu moo ko moo ko moo ko wër ba tax na tey ñu bari jaaxle surtout que ñun ñu ngi dëgmal euh, période bu nga xam ne gaz feeñ na pétrole feeñ na te xam nga day nekk bénédiction wala malédiction donc tey loolu nag. am ci dëkk yooyu te jege ñu lool ñu war ci def jàngat lu am solo la ndax buñ ci deful jàngat rek safaan ba mën na am leen rek nag mooy particularité ak singularité Sénégal mooy li nga xam ne foofu la wuteeg yeneen dëkk yu bari ci biir Afrique ak ci biir àdduna bi Sénégal dafa am chance am armée républicaine ndax gis nga officiers généraux yi ak officiers yi nga xam ne nekk nañu tey ci biir armée bi civil yi ñoo leen di jox ay instructions ñu koy appliquer parce que c'est le civil qui commande le militaire mais tey officier yooyu civil yu bari di leen joxe instruction ñu di ko appliquer ñoo leen ëpp formation ñu leen euh, euh, ëpp xam-xam waaye comme ñoom nangu nañu dem sous le drapeau nekk ay soldats luñ leen defloo dañ koy def di leen obéir waaye l'armée sénégalaise est une armée républicaine boo xam ne loolu dafa nekk chance su Sénégal ba nga xam ne tey yooyu am ci biir Afrique bi am ci sous-région bi euh, mën naa nuyoo rek mais gëm naa ne du gaaw a dugg si ndax xam nga Sénégal musul vivre coup d'état tentative de coup d'état moo fi amoon 17 décembre. 1962 Senghor ak Mamadou Dia affronté wu Senghor danaan wax entre coup de force ak coup d'état lan mooy différence bi waaye loolu ba nga xamee ne tey ëpp na juróom benn fukki jaar na fi jàll na fi ñu endigué ko coup d'état au Sénégal kenn ñaanu ko yàlla mais gëm naa ni dadul mën a nekk dootul mën a gaaw comme yi mën a amee ci dëkk Afrique yi parce que fii on a une armée républicaine bien formée ma leen di sargal di leen kañ ci loolu di leen gërëm ndax force defence défense et de sécurité yi damay embrayé ci loolu ci biir réew mi fii man su ma gisee sax ku leen di nga ñi dafa may xaw a jaaxal parce que ñooñu ñoom ñoo assuré suñu sécurité góor gi boo mënee tëdd guddi nelaw saa nga am benn inquiétude jàppal ne tey ci àllu sigi ba am na ñu nekk xam ne yor seen ay mitraillette toog di sàmm population bu suba jot boo demee tey Fuuta boo demee tey Cees gi foofu dem rek am na ci ay takk der yoo xam ne bu nit ñi tëddee di nelaw ñoom ñu ngi toog di veiller ci population bi kon tey muy police muy gendarmerie muy armée force de défense et de sécurité dañ leen di sant di leen euh, gërëm ci seen taxawaay di wax nag ne noonu ñu nekk ay républicain noonu ñu nekk ay patriote nañ ci continuer te xam ne nation bi xàmmee nañu ràññee nañu kon daal li am biir Afrique jaaxal na ñëpp loolu nag souvent lu ci ëpp manque de démocratie moo koy indi parce que peuple yi moom bu ñaxtu bi baree ñaxtu bi bare rek armée àtte te bu armée àtte day jël pouvoir bi te loolu nag wax dëgg yàlla kenn ñaanu ko ndax dañuy jàpp ne frein la ci démocratie ndax tey ki nga xam ne fal nañ ko mandat juróomi at wala juróom-ñaari at yàlla moo xam dafa war a dem ba au terme de son mandat mais su fekkee ne na gars yi atte nga able léegi nag loolu mën naa jur lu nekk gis nga Bazoum moom mu jëkkat pouvoir bi coono bi mu nekkee ak njabootam gis nga CEDEAO bañ nañ waaye bi ñuy bañ def effet de mu jur fenn parce que tout simplement population bi kenn mënul jàmmaaroo ñoom da ngay tiire seen kaw da ngay mujj rek dellu ginnaaw donc dañuy def rek ay condamnation de principe mais tey kuñ ci falate baal sa xel peuple parce que boo ko defoon rek peuple bi justement yaa ngi wax ci li nga xamante ne mooy démocratie yaa ngi wax ci li nga xamante ne mooy aspiration population muy aspiration yi bees ci li nga xamante ne mooy gouvernance réew yi euh, Sénégal nag euh, ñu nemmeeku li nga xamante ni mooy euh, yi ni mel parce que dañoo jàpp ni manque de gouvernance ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci xuje yi mu xaw a méconnaissable un petit peu ci wàllum démocratie mu mel ni dafa am ay benn reculade bu am ci wàllum doxalin ci gouvernance euh, droit yi nga xamante ni mooy askan wi mel ni dañ ko bof wi euh, tey ñu bëri ñu ngi ngàññi euh, leader yi nga xamante ne tey yoon teg na leen loxo tey Sénégal ak situation bu muy dund méconnaissable ci li nga xamante mooy ci wàllum démocratie ndax ça a été tant chanté en Afrique Sénégal ndax jàppoo ni mi ngi gën di nax saay et puis aussi menaces yi wax nga ko naam am nañu armée bu républicaine est-ce que yi ni mel du mën a pousser ci li nga xamante ne au bout waaw xam nga euh, démocratie da def ay jéego xam nga réew mi am na fanweeri at ak euh, ñeent ci ren bi ñu amee indépendance ak léegi on est en 2024 Senghor a ko njëkk a jiite Abdou Diouf jël relais bi Abdoulaye Wade tey Macky Sall xam nga tey président Macky Sall nga ànd ak moom ak nga ñàkk a bañ ak moom nga faar ak moom wala nga contre ko di nga ko nangol ne am na bilan matériel boo xam ne kenn mënu ko contesté defar nay pont defar nay autopont defar na ay tali yóbbu na électrification rurale fu ñu xalaata woon yóbbu na PUDC Puma bref stade yi wax dëgg yàlla lu ñuy teg bët BRT TER kenn du ko laam-laamee li koy reproché rek mooy ñaar wax nga ko junj nga ko ci sa question bi mooy wàllu gouvernance ak wàllu casting ndax man Euh, dama ko daan su de alerte ci kaw yar ak teggin di wax président man de li may dégg ak ñi may taseel liñ may wax Macky Sall de bilan matériel bi kenn du ko contesté waaye bilan immatériel bi dafa sooxe loolu mooy forme de gouvernance bi ak casting xam nga république ak démocratie on prend les meilleurs dañuy seet ñi nga xam ne am nañ xam-xam bi am nañ aptitude yi ba pare ils sont plus ou moins dans l'exemplarité parce que xam nga kilifa euh, jubal dafa am solo sëriñ Abdou Lahad Mbacké mu baax ma dana wax boo bëggee mucc da ngay jubal mais gis nga nit ak xam-xam bi ak juddu bi ak dayoo bi ak nu mënti mel su jubul rek day am problème donc tey booy seet la woon démb ba woon tey booy tànn da ngay tànn ñi nga xam ne njort na ni ñoo gën a jub parce que bu fekkee ne tey tànn nga benn nit bi nga koy tànn mu mel ni man amul sax lu mu jëlee car rapide mais diir bu gàtt mu rangale ay bulit oto yoo xam ne bu ci nekk daanaka jegee na cent million def ay immeuble mais xam nga loolu day fes ba nga xam ne après gars yi dañuy xam ne mbir yi doy na waar donc gouvernance bi ak casting bi moom mooy am ay reproches yoo xam ne ñi may faral di taseel ak ñi may faral di déglu loolu lañ koy loolu loolu lañ koy loolu lañ koy sikke mais la perfection n'est pas de ce monde c'est pourquoi moo tax tey su fekkee ne dem nañ ba nga xam ne cinq jours moo des ñu def élection présidentielle maanaam weer ak genn wàll tey mu ne man bu defee élection mu dëpp dogal suñu borom bu le 2 avril ma joxe lenge yi loolu moom ci la nekk moom la wax sénégalais yëpp dégg nañ ko kon ñëpp dañ ko war a jàpp taxuwu ko gunge ko ba mbir yi jeex ci lu mu gën a rafete waaye kii ñëw moo nga xam ne mooy nekk juróomeelu président la république dafa war a remettre le pays à l'endroit maanaam compétence vertu li nga xam ne tey xool na ko gis ne tey ci gouvernance su président Macky Sall ci fukki at ak ñaar yi am na ci loo xam ne reproché nañ ko ko mu fexe ba loolu si besoin mu rectifier ko parce que sénégalais yi c' est vrai. ndax jàppoon na c'est trop tard pour euh, rectifier loolu. mois de mars 2021 yaa kii kii ñëw kii ñëw laa wax kii ñëw moom moom wàllam wéy na ba pare c' est moom li mu waroon def ak li mu mënoon def def na ko pare jeex na mais ki nga xam ne tey war naa jël lenge yi bu dikkee rectificatif yooyu day nekk un mandat boo xam ne li ñuy wax ci tubaab un mandat de la rectification ndax juñu ko léegi li fi 2021 ak 2023 kenn du ko nettali kenn ñëpp ko gis bu réew mi woon nation ca njëlbeen ga état am république bi taxaw parce que état ay institution ñoo koy fonctionné loo wooy tekk dar yi force de défense et de sécurité aar réew mi kon réew mi sëngéem na parce que loolu moo nërmeel Mali Mali état moo fa amul moo tax mu nërmeelu état et institution moo koy moo koy fonctionné loo donc institution yooyu bu ñu fonctionné rek état bi day nërbeelu donc 21 ak 23 réew mi sëngéem bu réew mi nërbeelul parce que ci njëlbeen gi d' abord nation la nation bi mooy loo xam ne tey moo jiitu état bi ak république bi nation bi Senghor mu njëkk a jiitee Sénégal daf ko fekk mais daf ko renforcer mooy xam nga comme vouloir de vie commune man yow ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay nga dëkk Casamance ma dëkk Fouta nga dëkk Bawol ma dëkk Siin ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay te xam nga souvent dama koy wax Sénégal mataguñu encore 20 millions am na ay capital yoo xam ne ci biir Afrique capital yi ëpp nañu 20 millions kon tey réew mi réew mi tuuti ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay benn linguiste bi mu ko doon jàngal mu ne booy xool séeréer ak pulaar 200 expressions commune ñi ngi ci tey man. dañuy bokk ci deret wala ci geño wala sax kóllëre jur genn mbokk goo xam ne dëkkandoo bi yàgg na ñu dem ba bokk ndey baay nit fu mu jëlee soxna wala nit fu mu dem bu sëy rek mbokk ga yaatu woon na parce que nit buy jël soxna rek du fi mu bokk rek lay jël soxna xoolal benn particularité ci communauté lébu ndax ndakaaru bu ñu fi nekkee fii am na aada am na cosaan lébu yi ca njëlbeen ga légitimité am nañ ko Dakar mais ci njëlbeen gi ay ndoxandéem la ñu woon parce que suñu maam ju baax ju guddi jo ba mu jógee Kajoor ñëw dugg si fii mais borom xam-xam la woon di wasaare xam-xam ñu ne kii kan la mu ne guddi Diop mooy maamu maamaatu ay ñoom Abdoulaye Makhtar Diop bu ñu demee tey ba Ndakaaru am fukki ci ak ñaar Ndakaaru particularité communauté lébu di nga gis lébu boo xam ne Gomis sa sant gis lébu boo xam ne Koreya yàlla sant. ku ñu sant Jóob rek ñoo koy nekk ndax particularité bi ñu bari wuñ ko lébu di ko gis mu bokk ci loolu ndeyam ak baayam nekk ko mais bu sa baay nekkee lébu da ngay nekk lébu bu sa ndey nekkee lébu da ngay nekk lébu loolu moo tax gis bu sant koréa loolu gis mu gis ak yeneen sant yoo xam ne mën na la jaaxal te ñoom ñëpp dañu nekk lébu parce que seen ndey loolu la donc loolu xam nga tey mooy ouverture ouverture boobu nag supposons ñu gis ci communauté lébu ak enracinement boobu ah ak état d'esprit boobu loolu rek mooy particularité Sénégal da ngay gis ni tey moo am mbokk ca Jolof am mbokk ci Kajoor am mbokk tey ca Fuuta loolu mooy Sénégal xoola këru diine yi tey ñu fi tudd amul ci benn boo nga xam ne tey cosaan ma tey boo xamee tey dem du nekk ca Fuuta kon nag nation boobu dafay dooleel Sénégal bu ñuy kalante man ak ki sant Jaw ak ki sant Géey ñun ñi nga xam ne sekk la sant loolu dafay nekk force bi xam nga wolof yi dañ ma daan euh, jàngal yoo xam ne dafay dafay lay charmer xam nga tey moo doon wax ma ndakaaru jal Jóob kon ndakaaru mën na ne Jóob la sant Sénégal Sénégal Njaay tu comprends booy xool supposons ni ñu kafeente nangam nangam da ngay ñëw man eh sama waa ji bi lay boobu gis saalum saalum euh, bu yeew xoolal bu ñu la xoon loo wax mu ne xay daf may nax donc yooyu yëpp day nekk ay ci biir réew boo xam ne dañ ko war a sàmm jolof jolof beek saalum saalum beeg bawol bawol beeg njaamur njaar bi ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ak baay nation boobu nag lañu ñu war a tee préserver ko ba bu ñu dem ci lii ñu dëgmal nii muy élection yi nga xam ne dañ ciy ñaan jàmm ak salaam yàlla def tiitaange gis ñëpp am tey ñëpp tiit ñëpp a jaaxle fan lañ jëm lan moo ci nar a xew ndax li tax nit ñi jaaxle fan lañ jëm lan moo ci nar a xew xam nga lu ne fang kenn du ko jeex parce que ñëpp gis nañu ne tey ki nga xam ne mooy acteur populaire bi nekk ci jeu politique bi nga xam ne tey popularité am kenn du ko contesté xale yi jublu nañ ko jigéen ñi li ci ëpp jublu nañ ko nit ñi li ci ëpp jublu nañ ko mu tudd Ousmane Sonko. d'accord ñu ne. foofu sa laa bëgg ñu ñu ñu ñu ñu taxaw ci. muy le cas Sonko bi nga xamante ne tey mi ngi ci loxoy mu ngi ci loxoy yoon euh, conseil constitutionnel daanaka candidature am invalidé nañ ko ndax jàpp nañ ni dossier matul ci li nga xamante ni euh, ci lañ mën a sukkandiku kaddu yi euh, ki nga xamante ni mooy mandataire am maître Ciré Clédor Ly tey situation Ousmane Sonko noo ko jàngatee Abdoulaye Fofana. waaw situation bu metti la ndax xam nga boo nekkee ci biir réew xam ne tey bu ñu defoon élection. soo ko gañewul tey premier tour di nga dem deuxième tour ndax ñu bari jox nañ la bopp léegi nag yoon teg na lox mënoo cee bokk ndax gis nga conseil constitutionnel wax jee bari rek ak loo ci mënti dégg décision ba muy jël rek moom ñu nekk moom la ñuy juge des élections bu ne yow dañ ci bokk dañ ci bokk bu ne doo ci bokk doo ci bokk borom xam-xam yi man xam nga jànguma droit mais damay dem laajte ji ñaari hypothèse rek moo mënoon am tey jël nañ dossier bi ne saytu nañ ko neuf pièces la ñuy xool neuf pièces yi manqué na ñaar lu tax mu manqué ñaar mooy attestation bi ko CDC war a joxol ak fiche de parrainage ah amu ko administration yéena ko ko xañ kon nag loolu tax na ñun ci suñu wàllu bopp xam nañu loolu kon ñun Ousmane Sonko atte nañu li ñuy atte mooy bokk na ci wala comme ni ñu def léegi ñu ne juróom-ñeenti pièces yi am na ci ñaar yoo xam ne manqué na dossier bu manqué moom xooluñu ko sax teg ko nële waaye lu ci mënti am xam nga euh, lii dëkk bëgg bëri bañ bëri xam nga dama bind yàgg na Ousmane Sonko aujourd'hui au demain nature bi ak forme bi moom la nit ñi di wax ban la ciy nekk mais kenn koo mënu koo nekk kenn mënu koo tee nekk en deux mille 2024 acteur de la présidentielle 2024 ndax conseil constitutionnel bu le 20 mu ne ñii ñoo ciy bokk juróom lañu fukk lañu fukk ak benn ñaar fukk ak benn sax yi war a dem yépp ñu saytu buñ ko nekkoon Ousmane sonk du ci ñàkk kum ne kii mooy sama choix Sénégalais demal votel kooku kon xam nga tey moom bu ci bokkul sax. physiquement nekk candidat dem campagne yi dina ci am tey mbër boo xam ne moom drapeau moo koy gàddu kon moo tax ma ne la bëgg bëri bañ bëri léegi nag foofu man Abdoulaye Fofana Seck di coordonnateur le Sénégal à la croisée des chemins appel bi may lancé man Abdoulaye Fofana Seck coordonnateur le Sénégal à la croisée des chemins mooy en tout responsabilité avec beaucoup d'humilité ci sama mbubb bu woyof may toroxlu nekk jaam yàlla kese sama loxo droite bi ndeyjoor bi tàllal naa ko ki nga xam ne mooy kilifa réew mi di président Macky Sall mais bi di càmmoñ bi tàllal naa ko sama rakk Ousmane Sonko ngir ñu déggoo pour préserver stabilité réew mi ak jàmmu réew mi ndax ñoom ñaar ku ci ne comme am nga mbooloo ci sa ginnaaw te li ñu naan ñaari kur lu ñu tasee ci biir mbalka li am solo mooy ku nekk wax ak ay say ñooñ te gis nga wax ji lu am importance la ci man ñoom ñaar ku ci nekk da ngay téye ay gaz ay garantie jox ko sa moroom ku ci ne lâché de l'est réew mi nekk ci jàmm. d'accord nan ñëw ci faisabilité bi mais Abdoulaye Fofana j'ai envie de vous demander quelque chose on sent que booy wax ci Ousmane ko dafa mel ni benn sympathie moo am vous avez des liens communs. non au moins moom benn lien commun. mais nit bu nekkee ci jafe-jafe dañ koy yërëm. dañ koy taxaw dañ koy jàppale. donc man position de principe laay nekk démb sama rak Karim Wade ba mu nekkee ci jafe-jafe. dama jël position ngir moom jàpp ne tey am na loo xam ne tardeel na doxu réew mi la jël na ko mën nañ trouver beneen solution bu woon li fi xew fi parce que nekk na ñagas ñagas boo xam ne dootul gaaw a dañ ndax nit soo ko jëlee pendant trois ans mu tëdd ci kaso bi su génnee ak lu ñu bëgg a bëgg a defaraat loolu dafa nekk loo xam ne kenn mënu koo gaaw a miim Khalifa Sall trois ans de prison tey bu ko sax dialogue politique delloowaate ci jeu politique bi comme Karim Wade mais am na ci loo xam ne day des ci xolam ba tey su ñu génnee ci loolu ci benn euh, durée boo xam ne ñaari mandat la Ousmane Sonko ñu teg ko loxo donc da ngay toog ba càng ne régime bi mais est-ce que stabilité bi moo am sax am na ko ndax dañu régler ay compte wala mu roog dafa régler nañu compte te man li ma gëm mooy loolu dañ ko war a dindi ci histoire du Sénégal gis nga cinquième bi man dama koy ñaan mu bañ xool dans le rétroviseur ndax tant que loolu mi ngi continuer rek day nekk rek nguur yoo xam ne day ñëw rek di fayantoo ki war a ñëw ëllëg jël affaire bi warul xool gauche warul xool droite li mu war a def dajale sénégalais yi rek boole leen développé réew mi xam ne les défis sont très modernes les défis sont très énormes te loolu mooy li nga xam ne moom solo ba tax na man Macky Sall nekk na ci ay jafe-jafe ak Abdoulaye Wade ci nguur Abdoulaye wadd mu am jom am fulla am fayda teg fa lépp jël mandat bi bàyyi dem créer APR man moment boobu la ma ca mën maa ngi koy bind di ko wax nekk ci ginnaawam parce que man waxtu ma ñëwee jàpp ne nit kii moo gën a néew doole par rapport ko koy néewal doole rek man ki ma gëm ni moom moo néew doole rek man ci moom position de principe daanaka moom ngay moom ngay faral. waaw man du ma nekkuma ci ay ay ay parce que man ñi ma xam ne xam sama cheminement. depuis le début des années 90 ba léegi ma def 30 ans de télévision je jamais été dans le chef partisan. d'accord musuma ci nekk itteelu ma ku mu neex nga nekk ci que tey cadre bii nga xam ne nekk naa ci. s 2 bu jug dugg ci beneen cadre nga xam ne te comité de facilitation la ay kàngam nekk ci ku mel ne sama mag mais professeur Babacar Gueye ku mel ne sama mag di kàngam Alioune ak yeneen góor ñoo xam ne ñu ngi ci biir di nekk ay góor ay jigéen ñu taxaw déggoo mais indi am ci représentant ñu ne ah nañu xool. tey problème yi bari na parce que fichier bii tey góor gi nga nangu koo daan nga bañ ko nangu xam nga ni dina jur coow ëllëg gis nga li fi xew ay ñoom Bougane ay ñoom Abdourahmane Diouf ay ñoom Mimi Touré dajaloo nañu gis nga tey Abdourahmane li mu wax ne ku ne jël sa dossier bopp porter plainte wut sa huissier coow lu bari loolu jëmale ko ci conseil constitutionnel day tax ëllëg nit ki bu faloo dina am légalité mais day du am légitimité te chef d'état buy falu dafa war am légalité waaye am légitimité xoolal président Diouf loo ko contre contre loo ko sikk-sikk gis nga démocratie droit de l'homme mais daf ko yóbbu benn niveau boo xam ne dafa doy waar xam nga Diouf booy xoolaat rétrospectivement en 2000 dafa mel ne c'était lui l'artisan de sa propre défaite ndax Diouf jël na ministre de l'intérieur militaire général ñu ngi tuddoon Lamine Cissé jël na général Mamadou Niang jox onel contestation bu ñu mësa a dindi bi mu ne code consensuel Kéba Mbaye 92 du ma ci dindi dara ñu dem élection 93 gis nga 2000 def nañ sax ay liste émargement bu dugal ko dans l' intérieur du pays bi fi coowal ay carte israélienne amee Souleymane Jules bi nga noonu fajari moo ko bindoon Diouf jël na hélicoptère jox ko ay ñu dem lépp luñ ci war a régulariser parce que affaire doublon yi yàgg na ci fichier bi lépp mu leeral ko. nangu lépp ba nangu loo xam ne finalement da ngay dem bañ naan sax xam ne Diouf branche bi mu toogoon moo ko siyal boppam mais loolu tey danga koy rendre hommage parce que loolu mooy démocrate. d'accord tu peux l'aimer ou ne pas leme mais euh, yar boobu mu nekkoon yaru Léopold Sédar Senghor jël pouvoir bi mais sur le plan de la démocratie daf ko renforcer ndax bi mu bi muy jël témoin bi quatre courants fi nekkoon moom la fi Senghor def boobu muy dem quatre-vingts ans mu jub ne jàkka mën a noddal. ñëpp nodd multipartisme intégral ça c'est le président Abdou Diouf Abdoulaye Wade mënoo ne du démocrate Abdoulaye Wade ci daraja bi Abdoulaye Wade ci flamboyance bi Abdoulaye Wade ci générosité bi un être décomplexé une université très brillant mais il nous a permis de comprendre ko lu impossible loolu rek possible la ndax tey autoroute bii ngay jaar nii ci Abdoulaye Wade la démarré boobu ku nekkoon premier ministre Abdoulaye Macky Sall ku nekkoon ministre des finances bu Abdoulaye Wade mais Abdoulaye Diop donc gis nga te pourtant Bayer dañ bañoon li mu nekk. li fi Diouf nekkee dañ ko ko bañal. donc gis nga ku ci nekk rek da ngay aaye wal sa moome Senghor moo jox Sénégal daraja bi mu am prestige xoolal rayonnement ñëpp di tudd Sénégal c'est grâce à Léopold Sédar Senghor Macky Sall tey nekk quatrième bi. on peut le surnommer à tort à raison le président bâtisseur parce que il a bâti énormément de choses waaye fi mu sooxee rek mooy li wolof yi di wax naan ci gouvernance bi ak ci casting bi maanaam làq doom dóor doom boo faree ci keppaaram lu bari tey mën ko ko def dara du la ci fekk mais boo farul ci keppaaram tey am na loo xam ne duñ la ci baal dara donc nag yooyu yëpp tey ñoom ñeent ku ci ne def nga la nga war a def. juróomeel bi nag bu ñëwee dafa war a nekk ñoom seen synthèse xool ci kanam rek amul ma sàmba amul ma demba par parloo amatul xeex kenn amatul dañu bëgg développer réew mi acce ca kanam ñu bokk ndey bokk bàyyi. dañuy ñëw euh, ci li nga xamante ne mooy ci li nga jógee sànq muy gouvernance au président de la république ak manquement yi nga xamante ne noté nga ko euh, ci li nga xamante ne dóor doom lakk doom fan yi dafa def sortie attaqué presse bi ak ñi nga xamante ne manière boobu la ñuy defee euh, li nga xamante ni moom mooy revue de presse Babacar Fall journaliste RFM pour le nommer mu daal di def sortie def chronique am waaye laata gannaaw bi mu defee chronique boobu mën naa commencé jug. Euh, ci kawam muy koo xamante ni euh, homme de de la presse la ñëpp ràññee ko nga doon koo xamante ni doyen nga ci ci presse bi d'abord sa commentaire ci li nga xamante ni moom mooy fait boobu en deux waaw xam nga euh, nit wax xalaatam nga di ko ŋàññi wala di ko dóor wala di ko saaga démocratie amatu ci xam nga. il faut s'inspirer des différences pour mieux apprécier les similitudes ñun ñëpp nañu bokk gis-gis sëñ bi il faut que ñun ñu am tolérance yàlla moo sàkk ñëpp nous sommes tous des ñu nekk ay julit ñu nekk ay katolik ñu ne sax gëmuñu dara nekk ay ay ay ay euh, ñu koy waxee tey euh, amuñu benn dara lu ñu war a gëm mais yàlla moo ko bëggee noonu ñuy gàtt ñu njool ñuy jaune ñuy weex ñi la suñ borom su ko neexoon ñëpp benn bi nekk ni leen di bind rek leen di bindee ñëpp gàtt wala ñëpp njool ñëpp nekk jul wala ñëpp nekk catholique mais defee ko noonu góor gi sama la bu baax ba Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul irham jàmmi alwara la wax yàlla yërëmal mbindeef yëpp kon waxatul doomu aadama yi créature la wax kon nga xam ne sëriñ bi gis-gisam te passé na kii murit la kii tiijaan la kii catholique la kii loo dafa ne mbindeef yëpp xam nga mbindeef yi lépp ngi ci biir du ay doomu aadama rek yërëmal mbindeef yëpp kon gis nga notion de tolérance il faut ñu am ko man su ma waxee sama xalaat dëppoowul ak sa gis-gis jàppal ne loolu mooy démocratie war nañ ko mën a tey tontoo na leen lu dul ay saaga parce que li muy wax naan président Macky Sall président Macky Sall jëf na jëf ju rëy dafa manqué ay ndaanaan parce que ba amoon ay ndaanaan ndaanaan yooyu dañuy jóg te ñoom ñëpp ñu ci ëpp ñu ngi làqatu tey bi wax ji amee du ay saaga ak ay menaces moo koy fekk a nam tey ay ponk lu jóg taxaw nekk à ses def débat di de ab euh, euh, Babacar Fall apporter la riposte ci nu mu gën a rafete ci kaw débat di de mais du ay kaw ay saaga ak ay yooyu mais tey booy xool tey affaire bi dafa des mooy de deux mois mais gars yëpp làqu nañu waa kër Macky saal yi néew na ci ay benn benn ngay gis tey ku génn ne ma koy défendre mel ni àddina day jeex wala àddina day tukki pourtant du noonu parce que lëf di nga ci bokk yàlla xam ëllëg ni muy demee. nit daal bu fekkee ne fal na la fukki at ak ñaar signé le décret jëlee la ci condition yoo xam ne mënu woon xalaat liñ ci génn wàccoon ak yow lii ngor ak fulla ak fayda ak jom mooy nga ànd ak moom ba mu jeex tàkk su fekkee ne ëllëg dafa war a jeex ci ak ayam xayru loolu yàlla tudd su fekkee ne ki mu tànn muy candidat dafay continuer xayru mais lu ci mënti nekk. gis nga li xew ëllëg yàlla moo ko xew ngor daal lu mu jeex dara desatu ci am na ci ñoo xam ne Macky Sall dafa wàcceeg ñoom le président de la république. gisatoo leen nag déggatoo leen donc ay saaga ànduma ci Babacar Fall mën naa wax xalaatam les faits sont sacrés loolu la ñu jàngal le commentaire est libre mais tey bu ko defee. Mais les gens n'ont qu'à aller à RFM sur les radios sur les plateaux de télévision ne Babacar Fall dégg nañ la wax li nga wax ni ànd nañ ci àndoon ci mais du ay saaga loolu réglé wu dara. jërëjëf dañuy ñëw ak plateforme bi nga xamante ne lancé ngeen ko samedi dernier muy le 6 euh, muy le Sénégal à la croisée des chemins nga doon coordonnateur bi euh, plateforme yi euh, d'abord dañuy ñëw nga defal ñu une présentation de la plateforme boo xamante ne ay kàngam ko sekk. s 2 des chemins. mooy sele bi yoon Sénégal à la croisée des chemins gone la 60 70 Senghor da ko doon wax comme la détérioration des de l'échange comme le euh, la civilisation de l'universel comme le rendez-vous de donner et de recevoir xam nga Léopold Senghor ponkal la woon daam yi mu daan waxee phrase di ko génne ñu nekk ay boy école primaire nekk lycée di ko fan pa li muy wax ni xoolal léegi nag ma jël loolu tegu ko sele bi yoon mooy ñaari tase Sénégal tey dañu tase ci sele bi yoon xam nga des fois sax nga gis suñu bàyyi pexe yeeg seetkat yeeg yooyu jëlal nen bi sànnil ci sele bi yoon nangam nangam am na ci ñoo xam ne boo ko fa sànnee dañ koy jël baxal ko lekk ko de dem seen yoon donc léegi nag de la nation pacifier le pays renforcer l'état de droit nation bi moo commencé woon ay velléité identitaire xamuñu kii séeréer la xamuñu ni kii joolaa la xamuñu ne kii soose la xamuñu ne kii wolof la ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay buñ demee nag ba ku ci ne fa nga bokk rek ne foofu la yii y problème donc loolu moo tax ñu jóg ne loolu nañ ko def ci biir loolu nag ay kàngam ay universitaire ma di leen gërëm leen sant sama ay mag ci biir presse bi parce que bu ma ci rek ku mel ne Chérif Thiam nekk kàngam jiituma RTS xam-xam-xam mën na ko j'ai pas connu meilleur cadre que Mamadou Chérif Thiam à la RTS qui a fait sa carrière entre la RTS et la médiature Cheikh Tidiane Dièye brillant philosophe brillant journaliste conseiller en communication pendant de longues années du président Diouf Mamadou Oman Ndiaye mon grand frère moo ma mag fop man rek maa ko sañ tuddee ko l'enfant terrible de la presse damay xool di reetaan rek ba léegi moom rek ci ñëwu jamonoon moo nekk au cœur d'une rédaction de journal de la place patron du pub du témoin Issa Sall nouvelle Horizon mais ñooñu bu ñëwee tey lu xew xew bu bu mel am ñu nekk sama wet dama ciy kontaan ma jukki ci Asma ma Ndiaye nekk kàngam ci biir kàngam yi nga xam ne toute sa carrière la fait la banque mondiale l'un des meilleurs journalistes de sa génération di nuyu sama frère sama mag jiite na Sud FM lu yàgg moom aussi ñëw na toog ah Omar Diouf Fall donc loolu bu amee tey ndax boo xewlee gis ay kàngam yoo xam ne ñoo la mag ñoo la xam-xam da nga ciy kontaan à côté de brillants universitaires li ñuy waxtaanee yëpp tey may gërëm seen groupe de presse. yow nga jiite leen ngeen ñëw def direct direct boo xam ne ñëpp dañ ci kontaan man li ma woo foo ko natt weesu ko ne leeral de toj nañ dëkk bi parce que ñun dañu bëgg ay programme yoo xam ne dañ ciy jëlee xam-xam mais fecc meeg woy beeg sikkuma kenn euh, sàmbay mbéyaan beeg yi sikkuma kenn mais dañu bëgg loo xam ne tey suñu xale yi bu ñu ko xool nañ ci jàng xam-xam ça a été une fête de l'esprit gars yi ñëw toog déglu wax ji wax ji lu mu gën a rafete dara génn fa ci wax ju ñagas li ñu tax a jóg rek mooy réew mi dem ci jàmm gis nga culture de la paix boobu man daf maa itteel moo tax ci cadre boobu ci comme comité des facilitateurs bi nga xam ne tey sama mag euh, moo ko jiite Alioune li ñuy wax ci lañu ñu xam nga dañ naan yéex ngeen a jóg yéex a jóg moo sax gën bañ a jóg te it ah, te it xam nga di nga koo génne xam nga bi ñu koy génne lu ko jiitu ñu ngi liggéey ci suuf di def alerte di def médiation parce que xam nga lëf da koy togg ba mu ñor nga door koy génne mais génne koo pare fekk ne tey togg gi bëgg nga ko yàq nit ñi jëfandikoo ko te nit te ñorul amul sens moo tax on a préféré pendant longtemps ay kàngam ci biir di liggéey dans la plus grande discrétion di dox di wax ba tax moo tax mënuñu désespérer tey tey it la nga xam ne tëkk nañ ko ci commune ko comité ah de facilitation mooy ba ci jour élection bi ba ca ëllëg sa dinañ continuer di waxtaan di def médiation parce que li ñu bëgg frapper à tout les porte bu président Macky Sall mooy kilifa réew mi ñaan rek lañ ci mën xam nga man du ma mës a arrêté di ko wax j'ai beaucoup de respect de considération pour le président Macky Sall parce que d'abord je suis républicain ku jirif sa junniy morom du sa morom ba ca topp mooy mag la ci man ma nangul ko ko ba ca topp kóllëre dox na suñu diggante boo xam ne mat na au moins fanweeri kon xam naa bu baax président Macky Sall ba tax na tey ak lu ko nit ñi mënti wax ak fu ko nit ñi mënti dugal man li ma koy ñaan mooy pacification bi ñuy woote mooy jàmm ji moom lu ci ëpp ci ay loxoom la nekk. kon tey président dama lay ñaan nit ñi lu ñu mënti wax bu leen dégg jàmm ji ñuy woote ju ñu bëgg rek te yow nga bëgg ko te bañ a tëj say bunt loolu bu la ci kenn découragé continuer ci rek parce que dañu bëgg mbir yi muy jeex woy bi rafet foo ko natt weesu na ko sama beneen rakk bi Ousmane Sonko. bu mu tëj buntam bu mu tëj palanteeram il faut qu'il soit réceptif ci li nga xam ne mooy tey ñi nga xam ne dañuy dox tànku jàmm jëmale ko ci moom pour xat-xat bi mu nekk mu génn ci parce que destin yàlla noppi na ci ba pare li mu war a nekk ëllëg kenn xamu ko yàlla rek moo ko xam. mais Abdoulaye Fofana nag nga yaakaar ne loolu dina yomb ci période bi ñu toll parce que li def ci élection yi. waaw euh, xam nga loolu moo tax ma ne la ñu bari ñu bari xamuñu le génie du peuple sénégalais. gis nga jeunes sénégal peuple sénégalais foog ñaata weesu na ko parce que le Sénégal ne sombrera pas c'est moi qui te le dis jeune frère wallaahi barke borom Tuubaa Mbàkke mun naa ko giñ ci màggu Rasulullah le Sénégal ne sombrera pas. le Sénégal va nous survivre nous tous. xam nga euh, dama lay may boobu man 88. nekk na élection bu métti xam nga keroog ci conférence ba nee naa bu 63 bi bi njëkk première élection mooy bi ci gën a meurtrière quarantaine de morts allé centenaire sama baay bu baax ba Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si nekk opposant virulent au président Senghor Cheikh Anta taxaw mais 88 man dama fekkee Thiès fekkee Dakar nii dëkk bi mel ni à feu et à sang ku la ne woon tey réew mi du sëngéem nga ne lii mënu nekk mais pour temps lépp ci kaw wax la mujj ñu di ko dox di ko wax ba Senghor euh, ba euh, Abdou juuf ak euh, mi nga xam ne mooy jël ndonoy sengoor ak Abdoulaye Wade déggoo trouver un compromis un compromis dynamique un compromis historique vous vous rappelez de la sortie de Diouf dugg de de Abdoulaye Wade bi mu génne biiru Diouf tous les problèmes ont été discutés mais gis nga politique ñi koy def tant que xamuñu ne c'est l'art de tous les arts doo inhibé wu doo crispé waa ji du sa noon du sa ennemi sa adversaire rek la da ngeen a am benn moment boo xam ne rek bokku leen gis-gis mais tey Macky Sall ñu ko war ni tey ci nguuram gi am na ci ñoo xam ne bu doon ñooma du falu pourtant boo déroulé tey conseil des ministres ko xool am na ci ñoo xam ne ils tout fait pour que Macky Sall ne soit pas président de la République pourtant tey bi mu leen waree sédd tey yàlla tudd ko mun ci dara sédd na leen gis nga wala fi dañ naan yaa ngi bëgg buur te du sa bos yaa ngi bañ boo xam ne moo gën ci yow mën naa toog taxaw mais saawaay taxaw ne man diw laa bëgg mu falu te fekk nekku nekk sama buur taxaw opposé wu farouchement ba ñëpp teg seen bët ci nit ndakate kooku moom may sëdd ndax loolu mbiru suñ borom la kon il gaay dellu lépp ci suñu borom ndax suñu borom moom noppi na ci mbir yëpp mooy def li ko neex mais tant que gars yi yegguñ ci benn dimension bu nga xam ne da ngay am iman am euh, yaqin goo xam ne dangay xam ne mbir yi du mbiru doomu aadama mbiru suñu borom la rek da ngay jaaraa ko te gis nga Sénégal li ma la jox ci 88 dama fekk lancement mouvement Abdou ñu doy Iba Der Thiam def un texte retentissant tous les superlatifs ont été convoqués par le professeur Iba Der Thiam vis-à-vis de Diouf bi mu paree Abdoulaye Bamba Diallo conférence de presse la woon daan ne ma question je ne l'adresse pas à Iba Der Thiam mais au doyen d'âge de cette cérémonie Abdoulaye Fofana ancien ministre des finances euh, de de de de l'information et de l'intérieur sous Senghor demain le Sénégal il péri en Yuritil péril à la demeure mu ne ko Abdoulaye Bamba Diallo l'existence des cimetières tout près de moi m'interdit de la croire le Sénégal continuera sa marche après le président Diouf ana mu Diouf di dem na boobu léegi ñaata mat na 24 ans de Abdoulaye di ñëw ne fi bu fégal Macky Sall ngi waaj a fégal kon nga xam ne les ressources sont très solide te dans cette même séquence 88 bi Iba Der Thiam créé Abdou Niodoye ay ponkal wër ko Djibi Diouf Cheikh Tidiane Yaye Express Transit Vava mais xoolal sama baay bu baax ba ca la créé mouvement de soutien MSRA Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy bi mu koy lancé mi ngi mel ne tey ci man xam nga mu ko defee Demba Diop du stade ba mu fees ba toog ca bi yëkkate loxo yi ak daraja ba doomu Serigne Babacar Sy jooju satu séragement léegi wallaay wallaay tabarkàlla tabarka stade bi derrière mu ne saxaritu démb ak saxaritu tey rek bu ñu soxlaa comme pexe mënut a ñàkk rek ah xanaa ñu jàppale président Diouf. les jalons yoo xamante ni mettre ngeen ko en euh, a ñi ngi koy dox nag ci suuf parce que góor bu nekk fa mu xam ña nga fay jam keroog bi ñuy waxtaan suñu biir man maa këru diine yi am nañ ci cër waaye bu ñu koy def nañ commencé ci jàngu bi fii ci Ndakaaru te je suis un musulman de surcroît talibé Serigne Touba mais jàngu bi dañ ci am wàll am ci cër. ndax bu fekkee ne sax c'est une minorité par rapport aux musulmans mais c'est une minorité très organisée te maa lay wax ne la communauté catholique waxtu basculement amee lu ci ëpp joué nañ ci rôle bu rëy te ci ànd ak euh, ànd ak ay wax kon nañ leen ci boole këru diine yi nañ leen ci boole Touba Tivaouane Ndiassane Medina Baye ñëpp famille omarienne léegi mais les chefs coutumiers imam oustaz journaliste na ñëpp jóg taxaw ñu bokk ndey bokk bàyyi xam ne tey élection benn moment bu gàtt la rek mais li am solo mooy stabiliser le pays mooy le pacifier donc loolu yéen ñii journalistes yi am ngeen ci rôle bu rëy parce que fii ñu jëm nii il faut faudrait que presse bi éviter luy war a mën a mettre de l'huile dans le feu sensationnel bi jaratu ko ñu seet rek nekk une presse très très mature xam nga journaliste mënuñu ko réinventé foo ko mënti jànge jàng naa ko France saytu naa ko ci yeneen dëkk jàng naa ko fii ak foo ko mënti jàng 30 pour cent rek lañ lay jàngal gis nga 70 pour cent yi encadrement la ak terrain bi ngay bonifié wu di bonifié wu lii def différence ak entre les ay aptitude la ay prédisposition waa ji nekk na ndaanaan yàlla may na ko wala nekk ko donc loolu mooy def différence mais lu mu ci mënti nekk na nga jiital patriotisme patriotisme boobu ngay gis tey souvent sama mag Abdou Latif Coulibaly dafa ko daan tooñee ne reporter foofu yëpp ay supporters lañu parce que discipline bi xoolal tey booy couvrir équipe nationale ak loo dëgër dëgër dëgër mais sénégalais nga da ngay far ndax Sénégal nga faral union sacrée bi ñuy ñaan ci réew mi ba ñu def élection jàmm ak salaam union sacrée boobu laay wax euh, suma rakk ji moom coow cofeel bu bare ndax profession bi ak dal bi nañ ko def ak équipe nationale du Sénégal ndax fa ñu dëgmal ak fa ñu jëm kóllëre day yomb da lay nax gis nga bi ñuy gagné Coupe d'Afrique 2021 xaaruñ ñu calculer mu nekk mbetteel ci ñu doon jonganteel bii paa nag dootul nekk mbeteel le Sénégal est le pays le plus attendu les lions sont champions d'Afrique. vous avez xoolal ñëpp ah, ñoom la ñuy xaar. premier match bi ñu am lundi. dina mel ne la Joor tubaab ba ndax dañuy jouer ak suñu ay cousin suñu ay doomu ndey suñu ay doomu baay suñu ay doomu bàjjan Sénégal ak gambi benn dëkk la kon nañ ko def ci kaw foo agré bu Sénégal gañee ñu xam ne loolu la yàlla dogal bu Gambie gañee ñu xam ne loolu la dagal donc tey diggante Sénégal ak Gambie fitna xaju ci foo rek la agré peu importe ku gagné man je suis sénégambien ni sama xol di sentir Sénégal gi noonu lay sentir Gambie parce que samay mbokk nga fa. mais gëm nga ni euh, bi nga xamante ne ci la. day day day day métti day métti bu ñu jógee ci foofu. Guinée bii <laughs> mais Sénégal pour bu métti la jafe suñu ay doomu ndey lañ le nombre de Sénégalais en Guinée ay nombre de Guinéens ici foo ko ñett weesu na ko man xam naa ay Guinéens yoo xam ne fii lañu juddoo. waxuma seen baay ak seen yaay mais seeni i maam gënuñu leen nekk ay sénégalais comme ay libanais réew mi benn ñu ña bokk Sénégal Guinée mais message bi def Sénégal euh, Gambie loolu la rek dér bi la dina metti waaye kaw fo ak ree laneen xaju fi waruñu ko fay def Cameroun nag Afrique centrale Afrique lu soom suñu wujj la ñu mës a nekk li ma wax keroog daal ne xam nga Cheikh Ahmed Tidiane Sy vice président de la fédération mu gis ak El Hadj souvent dañ may dawloo sama yaram parce que bi nekkee gardien bi équipe nationale du Sénégal ay Nkono ay Badou Zaké ay ñoom euh, Bell ñëpp amoon complexe am parce que il a tellement anobli le poste de gardien de but su taxawee ci xale yi xale yi nekk ay doomam tey suñu leen waxee kan moo doon Cheikh Seck dinañ dellu gën a amaat jom El Hadj Diouf nga bëgg ko nga bañ ko jikko ji mën na leex mën la naqari kooku affaire nit waaye bu dee footballeur bi fit bi audace bi. ay Drogba ay Eto'o ñëpp amoon complexe El Hadji Diouf nit noonu ko daa ko folle mais nit du ko bu fit te il m'inspirait tellement que lu ne wax naa ko ci El si le football est un art El Hadji Diouf est un artiste El Hadji Diouf est un joueur sur le berceau duquel toutes les faits du football se sont penchés le football n'est pas une juxtaposition de granos c'est la conjugaison de l'effort des uns et des autres man forme d'inspiration macha allah laf cat bi nga xamee ne day ñëw ci man sport rek ko mën a indi ci man. moo tax may wax ni xoolal tey disipline bu am doole. boxe neex na wala neexu la moom la ñuy def noble art on se donne des coups mais on se la la main le fair play et la sportivité loolu dafa am solo ci biir sport kon nag na ñëpp ñaan. bu ñu merloo kenn nañ bëggal ñëpp parce que bii day metti de mais lu ko mbële de mën bële trois mois avant la créé comité de soutien au Lions pour une CAN victorieuse dañuy gagné coupe coupe d'Afrique ren dafa ma ko ñemee ma ko. fa ma ko tegoon il y a deux ans aw ma sañ-sañ boobu tey pour defaat ko te pourtant trois mois la ne Sénégal dañuy gagné coupe d'Afrique la ma ko xibaaroon déy ma ko comme dikkul du def lu dul as gor tey tey di ñu defal exclusivité ñu xaar la nga joxe euh, sa pronostic mais loolu d'abord euh, dañuy ñëw ci euh, li nga xamante ni moom mooy groupe Aliou Cissé tey bu boo ñu doon wax seen i atout ak li nga xamante ni moom mooy seen faiblesse. lan mooy xam nga moom xam na équipe bi ndax équipe am na stabilité am nañu def trois coupes d'Afrique xam nga li indi résultat yi soo koy seet ci sur le plan scientifique stabilité dans l'environnement stabilité dans l'encadrement technique. mooy indi loolu stabilité dans la group xam nga te groupe bi am na ay cadre ay mag comme ay Sadio Mané mag maanaam ci durée bi ñu ay nationale ay Kalidou Koulibaly le gardien de bi ay Idrissa Gana Gueye am ay xale yu ñëw comme ay Pape Matar Sarr comme ay Lamine Camara léegi nag dosage bi su ko réussir rek il va faire des merveilles dosage boobu nag mooy metti mooy alchimie boo xam ne mag ñi dañu ëmb ndaw yi parce que ah football xale koy def de xool Pape Matar Sarr gu nekk Thiès kooku lafcat buy football ak ndaanaan Umar mais ñoo ñooñu tey dañu ànd ak ay mag parce que compétition coupe dafa dafa metti gis nga ñi ko war a gagné comme naar yi souvent wala Cameroun Nigéria yi au départ da nga naan ñi am nañu équipe gis nga match de poule yi bu njëkk bi dañ koy laaxaate rek dañuy def nii bu demee élimination directe c' est la montée en puissance de l' équipe loolu mooy gestion groupe compétition internationale dafa metti donc bu ñu ñëw rek soobu contre Gambie ndànk ndànk ndànk ndànk mais mag ñi nañu uuf xale yi ba pare. moom ci boppam muy Aliou Cissé mu réceptif xam nga tey groupe bi tey Lamine Diatta Pape le dernier appelé là Pape Thiaw El Hadj Diouf ñooñu dafa joué ñoom 2002 ñu ngi ci biir groupe bi d'autres technicien d'autres anciens internationaux ñooñu ñëpp dañ leen war a dajale ndax gis nga des fois ñëpp day toog fii di gis loo xam ne yow gisu ko man bi may reporté. équipe nationale gis naa ba tàyyi ay faay wala gis naa ba tàyyi affaire yoo xam ne entraîneur bi mën naa ko sax doo gis parce que boobu xoolal pression mën na ko jàpp. Alassane Ndiaye le meilleur reporter sportif toute génération confondue le précurseur yóbbu def équipe nationale Mali après équipe nationale 65 bu ñu jógee euh, sëriñ bi euh, Tunisie sëriñ bi 68 Asmara mais séquence yooyu Alassane Ndiaye Diallo reporter sportif. yóbbu na fi équipe nationale def na fi équipe nationale créé na ko fi yóbbu na ko fi Mali xoolal détecté na fi ay grands joueurs et la façon dont il galvanisait les lions moom rek moo ko noonu moo tax soo son héritier sama mag ju baax ji Abdoulaye Diaw reporter sportif pur et dur bu démarré rek sëriñ bi après sa yaram daw rappel historique yi buy ñëw di ñëw di ñëw di ñëw mais sëriñ bi loo mënti def xoolal sa yaram dafa am lu muy yëg gis nga reporter sportif dafa am doole ci lii équipe nationale di def Sénégal Guinée 67. Abdoulaye Fofana ancien ministre de l'intérieur et de l'information bi ñu demee Guinée gagné ñu 3-0 Louis Camara l'un des meilleurs généra jour sur toute génération confondue mi ngi fii convention de Dakar sama grand boobu nga xam ne titre bi foo ko jot a weesu na ko moo ma ne Fofana Seck yéen ñu yem si Guinée dañuy yéemu ci Yàlla Sékou Touré boobu mooy benn noonu la muy Senghor dafa jël oto bi dugg ba ci biir stade bi mais courante bi. wàcc ci oto bi sol grand boubou bi jël mouchoir blanc bi yëngal ko mais ñu affolé Guinée bala te ñu dóoruñu 3 yu gaaw dañoo réer retour ba nag Senghor ne bii gàcce mënu ma ko fekk Sékou Touré sama noonu la lu ci pexe. Abdoulaye Fofana ministre de l'information mu ne ko benn condition mu ne ko ban condition mu ne ko le retour Alassane Ndiaye ndax allo boobu bàyyi na stade ndax moom ci crise 7 décembre 62 la farak ki nga xam ne mooy Mamadou Dia mu bàyyi. foofu Fofana Abdoulaye ne ko dangay ngay ñëwaat parce que ñoom ñaari investisseurs la ñu woon jóge Ponti mu jël benn nga posé condition mu ne ko noo da ngay ñëwaat parce que condition bi ma wax Senghor ne ko pour Sénégal gagné alu rek ñu ne ndax dina ko nangu du ko nangu ndeyam ju baax ja ne ko xoolal góor ñii lay woo góor nga comme ñoom demal wuy ji mu ñëw moo galvaniser Lions yi am ma Amady Thiam mu doon gardien de but ba plus grand gardien de but mu ne ma booy ma ngi tëngee jël yàlla bi may takk sama godaas sama doon jooy gis nga boobu boo jógee Printania stade bi Demba Diop jooy nañ fa bataille Printania mooy score bi foofu gis nga da ngay dégg Alassane Ndiaye allo micro ba sëñ bi mu xool mu galvaniser Lions yi Lions yi dóor Guinée 4-1 qualifié 67 ñu ko joué match boobu ñu ngi fii tey ci Ndakaaru fii ne ma jour boobu li ma am ci xaalis li ma may ci xaalis foo ko natt weesu na ko soreetul woon sax téeméeri junni kon pour dire pour dire mooy li ma wax sànq sama rakk ja la euh, ministre des sports Lat Diop je l'apprécie beaucoup bi mu ne dee invité ministre des sports yi gis naa sax yaa ngi ko ba jàttal ne moom demul gàntal na jërëjëf mais dama ko ne ministre des sports yi d'accord naa mais am na ci leen gën a yey parce que ministre des sports yi mën nañoo yóbbu seen bopp nañ ko mën nañ ko te mu ci dajale ku ci nekk rek terangay Macky Sall xanaa Mamadou Lamine Keïta ba nga xamee ne c'était sous Abdoulaye Wade te Macky Sall nekkoon na premier ministre boobu mais les anciens internationaux là les anciens reporters là mais ku mel ne xoolal Abdoulaye Diaw même soo demoon sa wax ko mu ne ah mënumaa dem parce que am nay engagement wala munumaa dem peut-être peut-être xëy na Pathé Fall Dieye Majib Sène am na ci ñoo xam ne mérite nañ tey gars yóbbu leen les anciens internationaux Yatma Diop a été le premier professionnel ñëw ay Louis Camara ay Mbaye Fall ay Roger Mendy y' a beaucoup de joueurs qui sont là nga xam ne dafa la ñu équipe nationale des anciens arbitres des anciens dirigeants ñooñu baax na tey bu ci ne nga seet ci tey ñaar wala ñett réew mi attan na ko te boo ko doon proposition Macky Sall Macky Sall daf koy nangu parce que Macky Sall ku bëgg lu baax la Euh, euh, devoir de mémoire boobu bu nekk ci séquence yu day baax parce que tey ku demoon tey fekk Pathé Fall Dieye wala Abdoulaye Diop wala Kaneen wala Yatma Diop ñu ne ah invité nañ la c'est le Sénégal qui prend ça mu ne ah man kat Sénégal bi ma doon sonal tey fay nañ ma ko njabootam da ciy kontaan parce que nii dañ bëgg sax dañu bëgg ku leen yëg man nga yëg moom mu ma gën a un milliard jox ma ko je ne suis pas un sujet je ne pas homme problème mais je ne suis pas aussi homme gis nga xaalis man dem naa ba lycée nekk internet di jàng boo ma ko may du ma ko jël parce que sama yaay daf may dóor bu ma ko yoree noonu ma ko dëddoo parce que dañ ma ko yaree noonu comme na nga xam ne Senghor meloon na ko yaree ci président Abdou Diouf parce que nit da ngay doylu rek bu la nit jaayee amam da nga koy jaay doylu tu comprends saa waay bu la jaayee juddu delloo ko ci maam Adama pronostic ci kan bi. non je veux et kan na woon fa woon wante nag affirmative moo de booba trois mois après dama ne Sénégal dañuy Coupe d'Afrique damay ñaan nag bii na woon fa woon waaye affirmative na ma ko defee woon sañu ma ko bi yoon parce que sëñ bi la ma daan déey comme déeyu ma ko damay toog rek rek la. moo daan déey. déet kooku nag moom beneen mbir ndax ñun ay dongo lañu rek ay taalibe lañu rek xamuñu dara mënuñu dara di wàkkilu suñu borom. xam nga tey élection yu ñuy dëgmal bu ñu amul dara bu ñu sàggoonee mbetteel bu rëy buur xëy fale sal Sénégal bu kenn calculé wul y a de fortes chances que moom ci réew mi comme neex nangul comme na xariwee de la ma ne la dama koy waxaat de suñu moytuwul du dinañ am buur boo xam ne kenn calculé wu ko. kum neex nag nangul kum naqari weddil du ma ne diw la parce que nag xoolal parce que kenn ko jiitu ci mbaram. loolu révélation la de Abdoulaye na beneen facette. bi mu bi mu génnee taalibe àqal na. billaay asim gis nga dara nekk borom. ay taalibe lañu bëgg a nekk bari ay bàkkaar lool duñu sëriñ amuñu cër amuñu daraja waaye gëm yàlla gi ak ragal yàlla gi foo ko natt weesu na ko nekk soppee nag Seydou Mame nekk taalibe Sëriñ Touba àqal. te Serigne Touba moom moo ma jàngal ne mais saa waay sama waay jooju ndaanaan la foo ko natt weesu na ko lu ne wax na ko rasulullah wajaxtu kulli lil wadudi samadi saaxid ma tilil Mustafa Muhammadi Serigne Touba mu sell ma simaamul wara xasindallaahi fil yadi allama ni maakaana xabla xal Serigne Touba nee na liggéeyal naa suñu borom ba mu fay ma mbakkanu mindeef yi yàlla xamal na ma lu jiitu mbakkanu mindeef yi yàlla may ma loo xam ne musu koo may ko may dañu ko nag katabalaa tabaraka wa taala ana bayti la yaram xoolal kàngam la ci biir kàngam yi mais nag Serigne Touba li muy sell sell ku prédire dikam sama maam ju baax ja Cheikh Oumar Foutiyou Tall foofu nag sanctuaire boobu mosoo bee ko tey moo di fi daan ne cey léer gi ma gis fii mu jóge ci kaw suba ci kaw si foo ko ñetti ko Cheikh Oumar ay moo tax ki ci ruq bi fii Seydi Hadji Malick sama maam ju baax jooju te xam loolu rasulilaay bëgg ko loolu lam daan ceeqalanteeg mbokk mu baax ma Serigne Touba Xaadimu Rasul Seydi Hadji Malick gàmmu gu njëkk ga dafa ne gàmmu gi de yaraax na waaye gu wen gi mbooloo mu ma gis mu jóge Jolof ànd ak góor Sané ña nga foo ko nattawee soog Seydi Hadji Malick bari bay jërëjëf Abdoulaye Fofana c'est ça le Sénégal une cohésion parfaite Euh, ci li nga xamante ni mooy dugalante bi euh, ci diine ci li nga xamante ni fan yii yëpp muy dox tànku jàmm di dox tànk yoo xamante ni am na solo doon coordonnateur de la plateforme euh, le Sénégal à la croisée des chemins di ko ci sant di ko ci féliciter di ko encourager davantage en doyen de la presse mais aussi ci li nga xamante ni mooy analyse yu pertinente yi nga xamante ni joxe na ko jëm ci kan bi ñu bàyyi la peut-être nga tàggatoo ak ñi nga xamante ñoom ñoo ñuy seetaan. xam nga damay gërëm leen sant ci dikk bi xam nga tey boo xoolee salle bi dama ci ne benn titre man dama judd sama kër baay nekk xale bu ndaw dans les années 60 xàmmee ràññee Léopold Sédar Senghor mu séqu ak baay bi ma jur ak ndey ji ma jur. kee photo président Abdou juuf la man ak taawam Makhtar Diouf 1961 la judd ñoo lekkoon lii sama Malick mu nekk bàyyi ci man. ni Ousmane Tanor Dieng nekkoon mag ci man ñu séq rapport bu rafet ma di ko ñaanal yàlla di fàttaliku ba ma ñàkkee sama baay 1997 dëkk yee ndox man Thiès mu nekk nit nekk nit ku dal nekk nit ku baax yor na jikkoy séeréer la sëriñ ba Bassirou Mbacke waxoon waaja ba muy ñëw di jébbalu mu ne ko mbaa yor nga jikkoy séeréer mu ne ko lu jikkoy séeréer Mbacke mu ne ko buy jàpp day bàyyi jàpp day jàpp buy bàyyi day bàyyi ñun ñu wér lañu papa sëriñ Mountakha Mbacke bi moo ko waxoon président Diouf bàyyi la ci man xam na ma ràññee na ma ma fonk ko lool ngir rapport de père à fils Abdoulaye Wade daf ma adopté woon bëggal ma boppam ñu complicité intellectuelle mu ngi nii këlee ci kaw nii Denis Sassou Nguesso damay dem ngàndee ji ko démocratie bañ koy woote François Mitterrand di ko wax ca France bokk nañu ko fekk woon c'est le dernier des Mohicans aujourd'hui dans le continent africain passionnément africain passionnément sénégalais bëgg Sénégal ci boppam bëgg jàmm am ci réew mi waxtu mu gisee loolu rek la may wax fait tout pour que Sénégal nekk ci jàmm moo tax nag dafa dëppoog nag wax jama sëriñ Mbàkke Soxna Lo sama mbokk ma xoon mu ne Abdoulaye Fofana Seck ko fekk yow laay njëkk recevoir pour sottal la pour xam ne lu tax ñii ñi war a mën a xam ne may def loolu parce que fii nga bokk man day ji ma jur Tuubaa la dëkk ba ba muy génn àdduna mille 2021 xamul ndey Modou Moustapha Mbacké rek la yar moom rek la xam ni ko yar jël ko jox na ko Fat soxna Fat Diop daal nit boo koy jox danga koy jox mbokkam Sofita Mbeng muy jur sama ndey Binta Diop ko jur ma nga soxe ko ca Kajoor mais tey rus naa di dàq ak mbokk jëmale ko ci Lat Joor Ngoone Latiir Joop parce que gëwma loolu gëm li ma gëm rek nekk taalibe Sëriñ Mbàkke mu baax ma moo ma ne woon solal sa dàll ko dox di ko wax ba réew mi nekk jàmm loolu laa la sant dem na tey ndigalam kooku dama koy wéy ndax toog naa man guddi di wax di wax ba muy jooy ba mu nelawee wax naa ko sëriñ Abdou Fata toog Moustapha Ndiagne toog ma ne man rek la sëriñ Mbacke ma sa bay jooy sañu maa lépp nag waaye naa ci génn kon mission ba ma santoon Sénégal nekk ci jàmm te moom moo jëloon Macky Sall yóbbu ko sëriñ Saliou dénk ko Sall moo mujjee gis ci homme politique sëriñ Saliou Mbacke ba muy dàqu moo tax mu nekk nit ku doy waar dama lay wax. kon loolu ci laa nekk sëriñ Muntaxa Mbàkke di bàyyi ci man magam ju baax ja sëriñ Moustapha Bassirou Mbàkke ñoo bokk ndey ak nekk ay magarak moo ma ne woon Abdoulaye a Seck ma ne ko Mbàkke mu ne ma li ma lay sant mooy bul parparloo jàppal ci réew mi te rek ci réew mi bu dugg mu ko daal ci partisan kon su laax koo tey war naan loo xam jooju ma jëfe ko ah nitu yàlla bu baax ba sama baay bu baax ba ci woyof gi doomu Seydi Aj Malik sëriñ Abdul Aziz si mu sell ma fii ci Gueule Tapée sëriñ bi mu génnee àdduna Mansour doomam a ngi toog mu ne ab Ablaye ma ne ko mu ne ma ndox donte ndox la baax na ci garab bu nekk waaye bu muy tëj waxtaan wa dafa ne gise bi yàlla mu ñu nekk suñu gise semaine boobu la dem ñetti fan ñeenteel ba mu Ablaye dox nag mission bu ba mu wat réew mi bu ma saana toll fii da taxaw jël position pour réew loolu mooy lii war doomu aadama te moo ma ne woon maslaa ba ñu maase la la yàlla tegoo ko kenn sëriñ Abdou Lahad Mbàkke jàngal ma ne àddina yàggul lu muy yàggati yàggati nit a gën a yàggati wërsëg soo gàttandoo bu dëpp daraja boo ko jant xaaj man ñaari école yooyu ñaari ecole yooyu bu Seydi di Malick incarné par sëriñ Abdou Aziz Sy mu sell ma ak bu sëriñ Tuubaa incarné par sëriñ Abdou Lahad Mbàkke dama ci jàng lu bari ndax sama ñaari baay yooyu kon nag maa ngi ñaan ci barke gaa yu baaxee ni ma wóoree ne Sénégal du sombre nañu bokk ndey bokk bàyyi déggoo jubóo te sauver réew mi di ñaan nag sama mag ji président Macky Sall sorti bu rafet laa koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal ci kaw sag ak sutura mu dawal yërmande ci sama rakk ji Ousmane Sonko sëriñ bi àdduna yàggul neexul te lépp dañ koy fàttaliku ko te lu mu yàgg yàgg tey Ousmane Sonko xat-xat yooyu bu mu nekk dina ci génn moom it mu warmaal ki nga xam ne mooy kilifa réew mi. parce que j'ai toujours di nit bu ñu la former pour servir l' état tu peux pas l' état dans son entièreté force défense ak sécurité ak lu mënti xew rek bàyyi leen justice ak lu mënti xew bàyyi leen am na corporation yoo xam ne da leen di bàyyi bi ñu bokk mooy bu journaliste yi am na xool ñu mucc ayib waaye am nañu fa la am waaye lépp ci biir njaboot gi la bokk comme nag ñoo jaboote ñëpp nañ rafetal. président jàmm ji ji ñu bëgg moo ci jiitu gis nga comité de facilitation bi nga xam ne Alioune moo ko jiite ay kàngam nekk ci recevoir leen nga waxtaan ak ñoom ñu trouver ay solution ñooñu jóg dem seeti Ousmane Sonko trouver solution bu conseil constitutionnel joxee nag le 20 verdict bi daan ni ñii la fukk ak benn la wala ñaar fukk ak benn la wala ñett yi wala ñeenti la ñooñu tijji seeni buntu comité bi wax ak ñoom ne leen jàmmu réew mi jiital suñ borom noppi na ci lépp xéewalam yi kenn mënu koo jeexal sóoratu rahmaan fa bi ala harabi kumaati kazibaan sëñ bi ku mën a dute ci ngëneelu suñu borom yi innahu yakiiduna kaydan wakiidu kaydan ah rasulilah mi gis ñëpp suñu borom da ko ne saawaay xoolal mu jàkkaarloo écran yi ils ont leur ruse chez plan suñu borom nag amul plan xam nga suñu borom day dogal kun fayakoon gaa yàlla yi lim bi ko ci trouvé ah xam ne suñu borom beneen affaire la xoolal ponkal yi fii toog dañoo ne tekk sañuñu ko wax xam nañu kiy wutu Macky Sall euh, sama rakk ji bëgguma koo feeñal Dame Dieng gis ngeen Dame Dieng xool ngeen ko dafa am làqu ci moom na ngeen ko wormaal ngeen ko téye taalibe Serigne Sambay boobu xam naa ci loo ci moom loo xam ne sañu ma télévision seen kilifa la ndaw la waaye ndaw la du ndaw de na ngeen ko wormaal te ngeen ko téye ko Abdoulaye Fofana di ko nuyu moom it tamit Dame Dieng muy suñu kilifa ah, euh, ci euh, Leral FM Leral TV ak euh, Leral point net Abdoulaye Fofana gërëm la di la sant bu baax a baax di gërëm sénégalais yi ñuy faral di ñu seetaan saa su ne chers téléspectateurs de Leral TV Leral point net et auditeurs de Leral FM jërë ngeen jëf c'était votre entretien exclusif avec le coordonnateur de la plateforme Le Sénégal a la croisée des chemins Abdoulaye Fofana ancien journaliste sportif à merci beaucoup chers téléspectateurs À la prochaine euh, avec votre entretien exclusif. Merci.